bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi waa Sénégal ak bitim réew ñi ngi leen di nuyu fii ci direction général bu daara yi Hizbut Tarqiyyah ci Touba ci teewaayu jëwriñ daara ji Serigne Youssou Diop ak lenn ci waa direction général ak daara yi biir réew mi ak bitim réew jublu gi nag mooy ziar bu mag boo xam ne daara Hizbut Tarqiyyah fas na ko yéene amal ci ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général de Mourides di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon dinañ jox sëñ Youssou jëwriñ daara ji mu indi ziar bi wax bis bi leeral jublu yi ak fi nga xam ni fa la ko isbu tarixee teg bu ñu noppee sëriñ Mour Thiam dina dikk ci turu mboolem daare yi nekk ci biir réew mi muy coordination des cellules nationales ak fu ñu fi mën a nekk bu noppee jox sëñ Elimane Sarr mu dikk ci coordination des cellules à l'étranger teewal fi mboolem daara isbu tarxiya yi nekk ci bitim réew ñu jox sëriñ Ibrahima Kayta ci turu direction général mu dikk ci organisation bi ak matuwaay yi nga xam ne isbu tarxiya jël na ko ngir jëm ci bis bu tedd boobu kon ñu jox sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara isbu tarxiya mu ubbi liggéey bi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi jiital ci samay kaddu. di ziar di nuyu sunu kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool tànd ak wér euh, di ci teg itam ñaan ak moom liggéey bii nga xam ne mooy liggéeyam bu màgg bii muy def ci lislaam Cheikh Mouhamadul Bachir euh, yor kàddoom ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di ziar njabootu Serigne Touba gépp di ziar itam bokki taalibe di ziar mboolem yi ñu bokkal diine lislaam ziar bi nga xamante ne euh, sëñ Lamine wax nga ko is bu tarxiya bu bu màgg la boo xam ne fi mu nu toll sori na lool am nañ taw feex nag déggoo jeeg déggoo ceeg sëriñ bi sëriñ bi jàppal ñu bis incha allah le 22 mai 2021 lay doon muy bésub gaaw dina war a tollook ginnaaw bu ñu waree juróom-ñeenti fan yi wala fukki fan yi ci weeru shawal muy atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi nga xam ne mi ngi aju ci weer wi su feeñee alxames wala ajjuma ñu ngi koy defee itam fii ci Touba ci kër Seexul Xaddim gii nga xam ne moo jàkkarloo jumaa ju mag gi ñuy sant bu wér Cheikh mun Muntaxa mi ñu jàppal bis bi ziar bi nag génn jublu la am ci Hizbut Tarqiyyah gépp jublu gi mooy sant sëriñ bi jublu gi mooy yeesalaat sunu njëbbal jublu gi mooy yeesalaat sunu jaayante ba noppi it feddaliwaat sunuy laxasaay ndax yéen ñëpp xam ngeen ne cant gi ma wax li ci jiitu mooy bi ñu mujjee jàkkaarloog Cheikh mun Mountakha muy février deux mille dix-neuf ci ziar boobu léegi bis bu set ñoo ngi seq ak moom ay liggéey waaye boobu sunu jàmbaar ji nga xam ne yàlla suñu borom da ko tegoon ci boppu mbooloo mi muy sëriñ atu muy gayndeeg seexul xaddim di ko am fit di ko dogu ci liggéeyal sëriñ Tuubaa di ko rëy ak mbébét ku ne xam na ne yóbbu woon na liggéey bi foo xamante ne ñëpp xam nañ ne ziar boobu kenn dootu ko fàtte waaye ginnaaw biñ ci bàyyi ko boobu léegi liggéey bi taxawut dëgg la naam waaye nag jot na ci mbooloo mépp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñëpp ñëwaat sukk fi kanamu Cheikh mun taxaa jébbalaat ko suñu bopp te xam ne jataay la boo xam ne dara wecciwu ko ndax euh, Serigne Touba day wax ne nazratul hubbi min cheikhi ila muridihi yil mazaya wal wala gindi ko gi mu ñuy gindi ko xool ñu na la wóor ne lépp lu murit di sàkku lépp murit di bëgg su waxee sëriñ bi aajoom ak bugg ko waxul lépp a ci biir loolu nag dara wecciwu ko waaye itam sunu jàmbaar dañu àndaloon ba ñëw ci moom ziyaare ko ziyaar boo xam ne kenn fàtteetu ko yàlla suñu borom dafa dogal suñu liggéey bi mu tàbbal ko ci doxinu Serigne Touba bi nga xam ne amul tànki ginnaaw tànki kanam la am moo tax ziyaar boobu la muy kawe kawe fas yéene incha allah ziyaare waat ko ngir wane ne lafi fi aatu Atou bàyyi dafay loo xam ne Serigne Touba gërëm na ko barkeel na ko da koy dolli saasu ne incha allah dinañ ko ziare ziare boo xam ne mooy féete kaw ziare ñu ko mës a loolu bëgg nañu membre yëpp xam ko xam ne mooy pas-pas bi bëgg it ñëpp xam ko te seere ko incha allah la ca topp mooy ma wax ak daara yi daara yi nag ci biir réew mi ak bitim réew man sama kàddu sama diggante ñoom la ca jiitu mooy sant leen kañ leen soññaat leen. ni ma soññee sama bopp ndax euh, waajtaayu ziar bi ku ne xam na ne ñoo ngi ci biir koor te liggéey bi muy liggéeyu koor gi liggéey liggéey bu màgg la boo xamante ne tolluwaay bi defe naa ñoog ñëpp ko xamandoo waaye boole ngeen kooku waajtaayu ziar bi ba sëriñ bi moo ñu jàppal ñaar fukki fan ci weeru mai waaye bu ko jàppoon ci biir koor gi ñëpp jekk nañu ndax fi ñu toll ni joxe bi jiitu na laaj bi yitte ji toll na foo xamante ne soow mu way moom ku ne xam ne atteem mooy lan te doxin noonu la tudd noonu la nurool kon liggéeyu koor gi yamu leen ci yéen a ko boole këru xaside yi këru xaside yi keroog bi nga xam ne yàlla suñu borom liggéeyub suñu aatu mat na yàlla suñu borom woo ci wetam ci wetu seexul xaddim sëriñam yàlla na yàlla suñu borom di dolli ci moom yërmandeem di dolli ci moom njëggalam saa su ne ndax moom ku ko doon ñaanal sax da naan payuk liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na ko fekk fa mu ne loolu lépp ngi ci biir keroog boobu ba tey këru xasida yi mësta dogantal bés bu set liggéey baa ngi dox loolu yéen a ngi ko booleek lépp di dox ak yeneen liggéey yi nga xam ne saa su ne ñoo ngi koy seq ak sëriñ bi te bi bi ñëwee kenn ku ne ci yéen wane na ne dégg na li tax sëriñ Tuubaa wax ne zur man tuhibbu wa in chattat bi ka daar wa xaala min dooni yi sahlun aw haar ay géej ay tund ay montagne bu doxoon sa digganteek sab sëriñ da ko war a jéggi waaw ah, layam na annaka buudun min ziyaarati yi innal muhibba liman waaw zawaar loolu kon bu mokkee rek dañuy xam ne dem ci sëriñ Tuubaa am na ñu ko doon def te gënoon naa jafe di dem Sarsara am na ñu ko doon def te gënoon naa jafe jafe jolof gi képp ña ko fa doon fekk lañ doon daj ci céyeen boobu dañ daan am ay autorisation yoo xam ne passeport ko gën a yomb tey visa ko gën a yomb tey ndax boobu tubaab yi ay daan ak jafe-jafe lañ tegoon ci képp ku jóg dem ci Serigne Touba te daaw leen teye romb lépp di dem ci Seexul Xaddim kon foofu la ziar bi tege moo tax daare yi yaakaar naa ne jongante bi xam ngeen ko duma ci sori kenn ku ci ne dangay def loo mënut ndax Serigne Touba loolu la yeeyoo waaw loolu la yeeyoo da ngay da ngay xam ne boo defee loo mën mu defal la loo mënul waaye boo defee loo mënul mu defal la lu la jomb te ku ne bëgg na lu ko jomb kon daara yi nag ginnaaw bu ma ci noppee Hizbut Tarqiyyah day lu ñëpp bokk mais xamal waa Touba nañ ko daan àndee bokk yi xarit yi wëllër yi am di jàmm yi mbooleem ñi nga xamante ne dañuy bëggee Hizbut Tarqiyyah woo nañ leen ci ziar bi yamu ci fii de day barab boo xam ne ni ko ma Mamadou Bachir euh, porte parole lu yoonu murit di faral di waxee nee na ay soldaaru Serigne Touba lañu muy baat boo xam ne baat bu mat dégg la bu baax ndax euh, du lenn lu dul barab boo xam ne ku fi mës a def benn fan sax ku fi mës a def benn fan foo dem war nga faa mën a soññee war nga faa mën a taxaw taxawaay boo xamante ne ñooñee seen ndox day gën a yomb kon mooy wane ne dafay foo xamante ne euh, durée légale ku ko fa def feneen foo dem mi ngi mel ne yaa ngi fii ba tey kon Hizbut Tarqiyyah buntub dugg la am amul buntub génn kon ku fi mës a ne na nga xam ne ñun jàppee nañ la ne génnoo suñu biir foo mu ne la ngay def ak li ñuy def benn liggéey la liggéeyub sëñ Tuubaa la kon woo nañu ñëpp bàyyiwuñu kenn na ko sëñ Atou daan waxee di wax ne ma euh, Mafaatihul Bisri Nuuru Daarayni Hizbut Tarqiyyah yooyu yëpp ay tur yoo xam ne kenn ko moom Seexul Xaddim la tudd nun noo bokkal lépp kon ñu ngi leen di woo ci lii ñu xam ne bis la boo xamante ne nun daal suñu feet la sunu feet la suñu bis la boo xamante ne fonk nañ ko lool euh, di wax itam nag ne liñ ciy teg mooy képp koo xamante ne suñu mbokk jullit nga te la ngay def saa su ne ngay woo Hizbut Tarqiyyah ngir mu dikk ànd ko yow nun tamit noo lay woo ci lii kon loolu mooy woote bi ci ñëpp bàyyiwuñu kenn li ma ci tëjee rek nag mooy sàkku ci ñëpp ñu ñaan sunu borom gindi ñëpp ci Cheikh moom Mountakha ndax bu ñu koo ci moom dinañ gindikoo ci sëñ Touba te bu ñu koo ci sëñ Touba benn kuréelu lislaam boo xam ne dinañu tiim dootul am ndax ko rek am solo euh, kon nag loolu moom lay tëjee di tëjee itam samay kàddu xam ne teewlu gi mu teewlu sëriñ bi ak fi mu teg sëriñ bi mën naa maye lu ne mën naa maye lu ne bi nag ni ma koy tënkee mooy mboolem xasawaat boo mës a dégg ci lislaam ubbi ko moo taxoon saaba yi daj nañ ci lu ne ñu baax ñi daj nañ ci lu ne mboolem futuxaat yoo mës dégg ne lislaam àgg na fa àgg na fu ne ba tey jii réewi arab yi nga xam ne fa la lislaam sosoo sax boo demoon tey jii ay Indonésie wala nga dem ay Pakistan wala nga dem ay Ouzbékistan wala nga dem ay yeneen réew yu bëri yoo xamante ne dégguñu arab ñooñu ëpp sax ab lim arab yi kon lislaam àdduna si ko tax a jóg waaye tey jii futuxaat yi mës am ba indi yaatal googu yëpp benn teewluk cheikh Mouhamadoul Mountakha mën naa yóbbuwaat lislaam foo xamante ne rangoñ yam waxoon na nañ jooyle l'islam tey jii des na tuuti na ñëpp lu rek ñëppay sargal l'islam waaye kenn dootu ko jooyle ndax jooyle gi dara waralu ko loolu sunu càggante ndax yàlla suñu borom moo wax ne walilahi na izzatu wali rasuli walil mumineen yàllaa jël doole moo ko yor jox ko yonent bi jox ko jullit kon jullit ñi bu ñu néewee doole nañ xam ne sunu melokaan la kon moom mii mi ngi liggéey liggéey boo xam ne fa la liggéey bi ne liggéey bi nekkul ci yëkkati jaasi laysa shujaa'u lazi yaxmi fawaarisahu yawma ta'aani izaa mal harbu tastahilu lakinna man hadda tarfan aw sana qadaman anil maasi fa zaakal faarisul batalu nañ ko topp rek ci yoon wi muy mi muy xiir ci futtiku mbubbum àdduna wutali sëñ Tuubaa man de ci laay wax ak waa mooy sunu liggéey sunu yoon nekkul ci leneen suñ ko defee ki nga xam ne mooy maye ndam dina may ndam sëñ Muntaxa moo xam dinañ yóbbaale dina yóbbaale mboolem koo xamante ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam jërë ngeen jëf balleen wax bisimilah barke borom tubaa waa ñu ngi ziar mbokki taalibe yëpp di ziar jëwriñ daara ji ci lii mu leeral mu jëm ci ziar bi nga xamante ne bii bi jaayante la suñu diggante ak Cheikhul Khadim Mbacké muy bis bu mag bis bu rëy boo xamee ni ginnaaw buñ génnee koor gi rek agsi na loolu nag ñu jaayante ko ndax ñaari taxawaay dafa taxaw suñ kanam benn bi mooy keroog guddi gi laylatul xadar muy guddi gu mag di guddi gi nga xamante ne bii mën na wax ne moo gën ci guddi ci at mi alxuraan wàcc ci ñu ànd ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci teewlu xasida yi bañ demee ba fajar ga jot mu tombeeg bisu Badar ndax lislaam moom bu jant bi sooyee rek bis bi dugg na lam ñu wax ca fajar ga mooy bu ñu kenn mag ci sëriñ bi kon wéy leen ci li ngeen nekk te xam ne gaa yu baax yi seen jumtukaay yi ñu yoroon di ci liggéey day yóbbuwuñ ko dañ ko fee bàyyi ku mas wut lu baax ci sëriñ Touba la nga ko doon wute lépp tey ji mi ngi ci loxoy sëriñ Touba dara la fi jóg amul la sëñ Tuubaa waxoon ci ne ku ma defal la gaa yu baaxee defaloon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma defal lañ amoon ko def la raw lañ defoon ma defal raw lañ amoon kon kenn koo xamante ne bii man ngaa taxawati di wax ne su ma fekkoon lii wala ma fekkoon laa loo mën a am yéene ko ci yoonu yàlla suñ borom suñ borom waajal na jumtukaay yoo xam ne nii jekk na ci ñu war koo def kon bu kenn mag ci yoonu yàlla mooy loolu. ñuy woo nag daara yi biir réew mi ñu xam ne ziar bi dañ koy jàpp bu ñu génnee koor gi. waaye buñ ko jàppoon ci biir koor gi sax jekk nañ barke Cheikhul Khadim mbake jekk nañ ci defar ko num ko bëggee te bu ñuy ñëw dana fawqa lépp lu ñu mësoon a def ci ziar bee ñu jëmoon bee ñu génn ndax loolu mbiri Cheikhul Khadim moo tëddee noonu amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ku ne xam ne ne jëwrin daara ji ba mu fi nekk ak yéeneem ak bëggam ci Serigne Touba muy muy sëñ Atou Diagne lenn rek la am muy tukku ci àddina dëgmal suñu borom loolu loolu moo fi teraanga loo mën a gis ci kaw suuf génn teraanga dong la nit am mooy sa dund gi nga seeyal ko ci yoonu yàlla suñ borom lu dul loolu rek pertement la kon ñu xam ne sëñ Youssouf jëwriñ ñun engagé nañ daaray biir réew mi ñu xam ne wóor na Cheikhul Khadim boo jekkoon suba suba suba nañu nañ dem ziare ji Cheikhul Khadim seer nañu ñun jekk nañ benn daar du des ndax niñ ko tënkee ak organiser ko ay pul nga ko génne pul bu njëkk bi mooy daaree dakaar di daaree Rufisque di daaree Mbour di daaray njagañaaw di daaray Thiès di daaray Joal ñooñu seen pul bu njëkk génn na am nañ ay bay Faal yu fa nekk yoo xamante ne bi liggéeyal Seexul Xaddim rek la ñuy xañtoo guddeeg bëccëg suba ngoon te jekk nañ seen jaar bu ñu bu ñu waxoon ñu ne tey jekk nañ pul de muy Touba di Mbàkke Bawol te foofu boo xoolee sëñ Abdoulaye su ma ko tuddee dana mën a yóbbaale ña fa ne ñëpp pul de soo jëlee sëñ euh, daaray Touba jër daaray Mbàkke jër daaray Saint-Louis jër daaray Tivaouane jër daaray Kébémer jër daaray Louga poul de boobu itam day ñëwaat te loolu soo tuddee sëñ Amadou si Samba da leen yóbbaale bu jëwrin daaray Touba nga jël poul 3 muy daaray kawlak di daaray Fatick di daaray jurbal di daaray Bambey di daaray Ziguinchor di daaray Tambacounda di jàmba daaray Kolda ak feneen fu membre nekk ci biir réew mi loolu soo jëlee sëñ Abdoulaye Diouf sëñ Ibrahima ñu ngi da leen yóbbaale kon biir réew mi liggéey boobu dañ koy ànd rafetal ko ñu xam nag ñun ñu di xaar koo xamante ne bii dañuy jëli jël la jóge bitim réew ñu jàpp na la ëpp ci si saar bi fa lay xam nañ ay boroomi jom lañ muy waa bitim réew xam nañ fi leen seexul xadim mbàkk jaral dem nañ xam ne biir réew mi senegal li jëm ci addiye ziar ji ñoo koy génne kon jekk nañ te xam nañ suñ ko waxee ñoom dañu ko bàyyee te diggante muhajirin ak lansaar la kon kenn ku ne dem ba jeex ci keroog ba dara na xaraña tëdde woon kenn ku ne di xëccoo aw yow mooy xëccoo dee lañ doon def mooy kenn ku ne dem ba jeex ginnaaw buñ futtikoo ci àddina joxe seen alal wan ginnaaw addina wan ginnaaw seen wan ginnaaw lépp loo xamante ne bii ay bien trust la lu nit di bëgg di ay poñetum àddina dañ koo suur ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir yëkkati baatub yàlla yàlla suñu borom mu jaraloon seen lépp loolu xaadim rasul ba mu ko jëlee na ko castee di ko liggéey ba bisub tey day gën a rafet di gën a taaru ñun loolu moo ñu fi bàyyi amuñ jënn yitti jurul ngërëmal suñu borom te loolu Seexul Xadim defal nañu ko ci liggéey bii ñu nekk kon ñu ngi santaat di santaat mboolem daara yi ñu xam ne daal diggante fii ak fukki fan yi raafaxtu fii xidmat yi taw fi xaxaali xinan sëñ Tuubaa dëxëñal nañu ko luñ ci sàkku loo ci soxla soo ko laajee sëñ Tuubaa teg na ci suñu loxo jërë ngeen jëf ina laa maana bisimilah barke borom tubaa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu kon ñoo ngi dellu si di siyaare bu baax a baax suñu responsable moral sëñ Youssou Euh, kàddu yu wax euh, kàddu yu rafet yu jotal yu matale dégg nañ ko sëñ Mucaam itam woote bi nga xam ne woote na ko mboolem daaru national yi dégg nañ ko kon ñun suñuy kàddu ñu ngi koy jëmale ci mboo woo bépp membre boo xam ne yaa ngi bitim réew bépp daara boo xam ne yaa ngi bitim réew ñu ngi lay woo waaye dañ koy tàmbale ci Afrique gi nga xam ne moo gën a jege Touba Mbacké te buñ ko waxee kenn ku ne xam ne daaru Mauritanie mi ngi ci biir suñ Babacar Diallo euh, sëñ baay moo Diop jawriñu daar Côte d'Ivoire nga ci biir ak sëñ Ahmad porte parole ñoom ñett ñooñu bu ñu leen tuddee ci daara yi nekk bitim réew euh, ci daar yi nekk Afrique yaakaar naa moom mat leen sëkk ndax ñoom dinañ mën a song soññ képp koo xam ne yaa ngi ci cadre Afrique ci teew ci siyaar bii nga xam ne mooy euh, bi ñuy waajal mu doon siyaaru sant boo xam ne day jëm ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké suñ ci jógee ah Europe lañ ciy teg muy muy moom itam foofu bu ñu fa tuddee suñ góor a jawriñu itali Italie muy jawriñu axe boobu yaakaar naa loolu itam dina doy sëkk sëkk sëkk sëkk eh, ndax matele na ko ñim àndal seen pas-pas seen soññ matale na ko buñ fa jógee itam dañuy jaar eh, dara dañuy jaar eh, Amérique ak si Amérique ak si Amérique itam buñ ko waxee ilimaan mi toog fii moom te siyaar bi tax koo jóg kon yaakaar naa appel bi ñu woowaa képp koo xam ne yaa ngi ci ak si Amérique muy Côte d'Ivoire muy Canada muy Brésil muy États-Unis ci boppam kon bépp membre boo xamante ne bii yàlla def na nga am kayit muy bu ñuy wax kayit mooy jumtuwaayu dem ak ñëw xamal ne sag teew ci ci siyaar bi farata la lu mënta ñàkk la tey am nañ ci tawféex nag ndax wax nan date bi nga xam ne kenn ku bëgg a ñëw danga nga mën a def sa réservation balaa ndax avion du saabu la neexee dem kon képp koo xam ne yaa ngi daara bitim réew daal ba ci Asie xamal ne woonal la ci teewaay bi waaye yëmuñu ci membre sax waaye bépp am di jàmm boo xam ne yaa ngi bitim réew te daara te te te di sa wëllëre woo na la ci teewaay siyaar bi nga xam ne moom la ñuy def ci sëñ Muntaxa Mbàkke fas yéene ko sante ni ko jawriñu daara joxe sëñ Yuusu Jóob muy siyaaru sant waaye siyaaru yeesalaat suñu njëbbal ci seexul xadim mi nga xam ne moom ba mu jógee rek la wax ne laqad sabaqtu falaa yaxfa ala ahadin illa ala ahadin ashqaahu mawlaahu nga xam ne moom moo mujj feeñ ci zaahir ci ci ci nit yàlla yi waaye yëkkati na loxoom ci kaw ne jiitu naa ñëpp fa suñ borom jiitu naa ñëpp fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam te ne loolu du ump kenn ku dul koo xam ne dafa nara def safaan kon nag kooku la ñuy siyaare ji waaye kooku itam sëñ Yuusu dafa am lu mu wax moom Seexul Xadim dafa wax ne lam yanhuni sultaanu aw waziru wallahu li yukrimu man yazur sëñ Tuubaa nee na yàlla defal na ma loo xam ne képp koo xam ne da nga may siyaare loolu amul settee koo mën a doon lax donte mbindeef la yaa nga xam nga dub julli wala dub julli neen na ku siyaar suñu borom day yokk say teraanga kon nag nun buñ bokkee ci moom mu moom nu mutlaqan ñu war koy sant waxtu jot kon buñ jàppee ab ziyaar mu doon ziyaaru sant yaakaar naa loolu murid bu ko dégg waaye rawatina Mamadou Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne ñoom ñoo tax ñoo ñoo ñoo ñoo organiser ziyaar bi kon war na laa jaral jéggi dex yi ni ko suñu yus waxee xuus géej yi ñëw teewee si bis mi jàkkaarloog suñu Muntaxa te nañ xam ne képp koo xam ne ñoo nga jàkkaarloog moom sa aajo dana faju sëñ Tuubaa day waxan na ci ziar loo xam ne santkat yi la wax ne fu nekk ci kaw suuf dina ñëw siyaare ma fii hawaytu min al baaqi munan faaqatil muna wayan hoo janaabi li ziyaarati Ahmadu loolu la Seex Ahmadu Bamba wax nee na fépp ay foo xam ne ay santkat nga ay santkat nga fa yu yu nekk ci bitim réew wala biir réew mi moo tax toujours da nga fay gis ambassadeurs yi fu ne ñuy ñëw di ko siyaare nee dinañ ñëw fii siyaare ma ndax kat la ñuy soxla lu ko ëpp mi ngi fi man mooy lu xawatu minal baaqi mu neen faqatil mu naa kon nag kooku la suñu jawriñ woote ni moom la ñuy ziyaare ji kon nag yaakaar naa daal e, gudd gàtt sëñ ma caam mii ma jàkkaar lool lii mu wax nii xam na ko kon bépp daara boo xam ne yaa ngi bitim réew la la war ci ziyaar bi dama leen ne suba ëpp na ci bala ñoo naanam ndox ngir jëmmi sëñ Tuubaa ne ko ñëpp teewal te gëm na ne loolu mooy am boole koo it ñoom seen jëmmi bopp itam kenn ku ci ne ni ma ko waxee koo xam ne sa jumtuwaayu ñëw moom téye nga ko bu lay lenn lu na nga teew man mii di wax ak yéen de loolu laa def te xam naa ëpp ma leen dara ci bi yéen ma ëpp pas-pas ak dogu ak wóolu kon ñoo ngi woo ñëpp bàyyi woonu kenn sëñ Youssou ni nga ko bëgg rek bu soobee sëñ Tuubaa noonu la koy defee bayit bi may daaneel sëñ Tuubaa moo ko wax dane ilayya qaada maa yuxallidu raxat wa am si yun si bi yow mi wa bi xat sëñ Tuubaa dane yàlla defal na ma sama bisub tey bis bu ñëw ñëwati day gàccaal fi ma fi ma toll woon tey waaye wabi xat suba jee di ñëw te àgguma fi bu ñëwee day gàccal li ma amoon ciy may ci bisub tey kooku kon sëñ Youssou li nga wax ci siyaar bee weesu di 2019 nañ am yaqin ci ne siyaar bi ñu jëm da koy faaqa da koy féete kaw te loolu nag duñ ko amee ci kenn ku di sëñ Tuubaa ba itam wi mu wax nag yal nañ ci fekk nu ñëpp mu la mu lawaale ba ak jullit yëpp muy waqdi hawa ijëlle si na daamoo fii xidmati waxab lahum maaraamoo foofu it sëñ Tuubaa waxut ne sama murit képp wala julli bi képp dana képp koo xam ne sax na ci di ma liggéeyal ñaan naa suñu borom foo toll loo bëgg mu la koy jox aajo boo am mu faju kon loolu yan nañ ci fekk kon daal ñoo ngi woowaa bitim réew ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye muudu yow itam na la wóor ne doo dem ban waaye duñ dem bala kon dañuy ñëw ci sëñ Yuusu rek ne ñëpp ànd ak lakkaru jowax yi maa ju mu wax yi bi xëyri jowax yi wala xataay barke borom Tuubaa bismillah barke sëñ Tuubaa waaw jërëjëf Euh, jëwriñ yi nga xam ne jàll nañu ginnaaw bi ñu dégloo suñu jëwriñ sëriñ Youssou ma indi tuuti rek lu jëm ci wàllu bés bi ci boppam ndax bés bi dafa am ñaari taxawaay ñaari taxawaay yuy laaj ñu xam ki ñuy fekki xam fi ñu koy fekkee muy jëmmi seexul xaddim mi ñuy dem siyaare ji di ko siyaare ci dëkk bii di Touba bës bi nag dafa am lu muy laaj moo tax du mën a ñàkk ñu waxtaan ci waxtaan bu tax kuy dikk ku ne xam dikkin wi naka la war a tëddee ndax day bés boo xam ne dana dajale mag dana dajale gone dana dajale góor dana dajale jigéen tëral ko nu tax nit ñëpp bu ñu dikkee li tax ñu jóg te muy ut si njëriñu àdduna ak alaaxira ñu mën koo mën a am ci ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee moo tax ñuy ñaan mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi dikk li ci ëpp solo ci li ñu mën a wone mooy ñu xam ne sëriñ bi am njàngaleem la ñuy firndeel njàngaleem nag ak yar mooy li ci jiitu kon kuy dikk ci dëkk bi kenn ku ci nekk da nga war a xool li gën a gànjaru ca la nga am nga génne ko dikkee ko ci bés bi li ko waral tey ñun ñëpp gis nañu lislaam ñun ñëpp xam nañu fattul makkata gis nañu lislaam ba ñu tolloo ci dellu ci dellu si màkka julli ci la gën a gànjaru lañu lañu la ñu duggee biir màkka te terewul dañ koo ànd ak toroxlu xam ne yàlla sunu borom rek mooy yàlla sunu borom ñun ñëpp ñu ay jaamam yoo xam ne ndimbalam ak yërmandeem rek la am li tax ñu xam ne dañoo dikk ci dëkk bii nga xam ne ki ñuy dikkal muy seexul xaddim te tey jotaayam di seex Muntaxa Mbàkke li mu digee moo tax kenn ku ci nekk ci ñun la ñu war a woon àdduna sépp mooy dañoo am ku kenn amul loolu nag defut lu ñu war a wax dañ ko war a jëmmal niñ koy jëmmalee nag mooy ñu xam ne yar la sëñ bi jàngale te mooy gànjaruk lislaam war na ñoo mën a dikk ñun ñëpp ànd góor ñi beru ni ko lislaam diglee soxna yi beru ni lislam lislaam te ñu bañ a bàyyi yërmande ji nga xam ne moo war a ànd ak xale yi nga xam ne ñoo gën a féete ndaw ba ñoom la mag ñi ut di ko sàkku te muy ngërëmal yàlla ci sëñ tubaa ñoom ñu mën a teewlu teewlu gu tax ñu mën a am ngërëmal yàlla ci sañ tubaa loolu it mi ngi ànd ak ñu xam ne mbooloo mu toll noonu organiser leen du mën a ñàkk ñu ànd ak lu mel nii force de l'ordre waaye ñu xam ne ñooñu dikkuñu ngir xatal dañoo dikk ngir bëgg yëfi sëñ Tuubaa buñ ko wanee àdduna sépp ñu xam ne am nañ ko kenn amut muy convoi boo xam ne dana am oto yu ndaw ay véhicules particuliers dana am dana am oto yu mag ay bus dana am lu ne loolu nag teg ko ci yoon woo xam ne lii jiitu dana jiitu li ci topp topp ci day laaj kenn ku ci nekk jàppee boppam ku sëñ tubaa yar ndax loolu mooy li ñuy war a mën a at won adduna si ndax jamono dafa toll ci contexte boo xam ne ku nekk yaa ngi wax mu war a am ay disposition yoo xam ne war nañ koo jël siyaare sëñ bi ba li ñuy sàkku ci moom ñu am ko te benn jam-jam du am suñu wal kon aménagement yi tàmbale nag euh, mu am it lu am solo loo xam ne danañ ko indiwaat muy euh, mbooloo mi nga xam ne moom lañu war a àndal yëpp te euh, ñu koy defee fii ci Touba te ñaare bu ñu daan woote organisation événement yu mel nii lépp lu ci aju ci disposition yoo xam ne day dañ koy ànd ak. ñi nga xam ne ñu yilif dëkk bi euh, rawatina autorité locale yi ba ci autorité régionale yi ci mboolem domaine yi nga xam ne seen assistance mën naa doon dimbal ci mbooloo mi fu ñu mën a toll ak fu nu mën a bàyyikoo ñu mën a ñëw ba ittey siyaare sëriñ bi leen tax a jóg ñu bañ cee am benn jafe-jafe bañ cee am benn gàllankoor ñu mën koo defee ni ñu ko war a defee loolu nag dafa bàyyiwut benn domaine ndax mi ngi ko tàmbalee ci autorités yi gën a màgg ci wàllu région bi muy autorité étatique yi te ñoom bu ñu leen euh, euh, saisir ni ñu ko baaxoo def du ñu bàyyi benn benn benn koor boo xam ne ci seen kilifteef la nekk ngir ñu mën a ñëw doon ndimbal ci mbooloo mi ba tax li leen tax a jóg ñu mën koo def sàkku ci ngërëmal sëñ Tuubaa te am ko ca kon ñoo ngi woo it ñëpp bàyyiwuñu kenn du biir réew mi du bitim réew nañu xam ne kon Serigne tubaa suñu borom teg na ci loxoom lu tax nit mën a jëriñu àdduna ak àllaaxira ndax moo ko wax bind ko ku ko gëstu di nga ko ci fekk. kon moo tax ñi ngi ñaan yegg ci bés ba tey ñaan mu Mountakha Mbacké yàgg fi te ànd ku wér te bu ñu ñëwee li ñuy sàkku ci moom ñu fekk ko fa mu ñaanal ñu dellu ci liggéey yéen a nga xam ne moo jëm ci wattaayu màggal gi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf kon ñoo dégg kàddu yi nga xam ni moo bàyyi ko ci jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne si Diop dégg ngeen itam woote yi nga xam ne Serigne Modou Thiam ak Serigne Elimane Sarr woo nañ ko mbooleem daara yi isbu tarix yi ci biir réew mi ak ci bitim réew ak matuwaay yi nga xam ne Serigne Ibrahima te leeral na ko ci wàllu organisation bi. kon nag ni ñu ko waxee ñu xam ne bisub cant la bisub yeesal suñu jaayante la bisub feddali suñu laxasaay la ci kanamu Cheikhul Khadim foofee nag mu am ci taxawaay bu ràññiku boo xam ne ni ko jëwriñ daara ji soññee kuréelu xaside yi. am nañ ko ci bis kon ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom ñi ngi ci waajtaay wi waaye ñu gën koo yokk bu ñu yeggee ci bis ba it ku ci ne barab bañ la dël ak lañ la féetale ci wàllu liggéey bi nga defee ko Pastef sàkku ci ngërëmal sëñ Tuubaa ñu ciy soññ nag mboolem daara Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ni ak fu ñu mën a ne seen itte mooy jëm ci bis bi amatuñu leneen lu dul fas yéene yegg ci ak jàmm te def ci lu ñu mën ak lu ñu mënul sàkku ci ngërëmal sëriñ Tuubaa te am ko ci di ñaan suñu borom àggale ñu ci ak jàmm ñu defee ko ni mu ko bëggee di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Serigne Touba mu matale ko te ñu ànd ko ak moom. di fàttali rek ni bis bi ñaar fukki fan ak ñaar la ci weeru mais muy vingt 22 mais atum 2021 mën a doon juróom-ñeenti fan wala fukki fan ci weeru shawal incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.